والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu borom di wax bismillahi di sant sunu borom waaye di julli di sëlmal ci ab ak i ak i saxaabaam ak képp ku méngoog moom ginnaaw loolu maa ngi nuyu waa daar bi ñëpp nuyu yokk islaam te assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ndokkeel ci weer wu teddu wu màgg wi nga xam ne ci la ñu muy sax Ramadan al mubarak di ci ndokkal ñëpp di ci baalu ñëpp ak tey baalu ñëpp ak di ñaan yàlla mu nangul ñu sunu koor nangul ñu sunuy naafila nangul ñu sunu mboolem lu baax te bañ a def weeru yi muy sunu mu mujjub koor dinaaw loolu mbokk yi ñu ñëw rek ci seen euh, daaray sàkku am xam ci jotaay yi ñuy wax daaray Cheikhul Khadim daaray Cheikhul Khadim ñu war fi waxtaan nag lépp lu jëm ci koor ak Serigne Touba Serigne Touba koor danañ waxtaanee li Serigne Touba bind ci koor ngir wane nga ne koor danañ waxtaanee xasida yi Serigne Touba bind te tënkee ko baatu sahru Ramadan wala la ca xaroo waaye danañ waxtaanee xasida yi Serigne Touba bind. te tënkiwu ko weeru koor waaye ci weeru koor ko bind li mu wax ne yàlla may na ko ci weeru koor danañ ci ñëw waaye événement yi xew ci dundu Sëñ ba te xew ci biir weeru koor danañ ci ñëw loolu yëpp danañ ci ñëw waaye tey nag ko fas yéene ak yéen comme que tey jii mooy bis bu ci weeru koor bi ci ñun tàmbalee ak xasida boo xam ni Sëriñ Tuubaa da koo defoon bis bu njëkk ci weeru koor ngir teertoo ko weeru koor ngir tasale ga ko weeru koor ngir ñaanal weeru koor mu agsi ak jàmm te xam ne mi ngi ci biir këram ne ci biir ñoom ñun nag ñu tàmm tey di bu njëkk ñu barkee loo loolu ci sunu jotaay bii ci xasida googu xasida googu mooy xasida yaa xayra bayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila abadi xaside googu nga xam ne sëriñ Tuubaa mi ngi ko def ci bahrul basit muy xaside gu deex fukki bayit la ak ñeent quatorze vers nga xam ne ci biir xaside gi sëñ bi da ciy tasagal weer koor di ko wax ne yaay gën di gan gan gu ñëw àndaale ak sëriñ soyez le bienvenu ahlan wa sahlan welcome di wax màggaayu weeru koor wi di wax njëriñ yi weeru koor am di wax baax baax yi weeru am di wax li ñu weeru di dàqal li ñuy jariñ ba noppi nag wax ngëneel yi nekk ci biir weeru koor mu tudd ci laylatul qadr bi nga xam ne nee mooy daatil fadli wa raqa waaye ba noppi nag wane cofeelam affection mbëggeelam ci weeru koor ne na ko bëgg xubba zaat yi waaye di wax sax weeru koor na ko seereel cofeel googu mu am moom sëñ Tuubaa koor waaye di wax na nag koor wa ko tàmbali woon di ko préparé ca weeru rajab ba ndey koor wa ak baraxlu ca la tuuboon tugg sell tuggoo ko nag mu ko ci biir koor ne weeru koor nag ma seedal nag ngëpp gi ma ngëpp alxuraan ba keroog may laxas illa xaaliya yow ma sabti wal ahadi xasida googu lañ fas yéene waxtaane ak yéen tey xam naa par ndànk ndànk dañ koy def tey yaakaar naa su ma présenté xasida gi ñaari baat rek wala ñetti baat laay jël insha allah ngir bañ a guddal xasida gi wax naa la sëñ bi mu ngi ko way ci gasul basul wax naa la fukki bayit la ak ñeent wax naa la daaliya la wala maa ngi lay wax ne daaliya la mooy bayit yëpp dañoo jeexee daal bayit yëpp daal la mu jeexee daaliya bayit yëpp dañoo jeexee daal waaye maa ngi lay wax ne xasiidi gi ci tarjumaan ja sëriñ bi moo waxal boppam kañ la ko way sëriñ bi moo wax ne weer ñëw na ci man bisub altine di fukki fan ak bisub altine benn fan ci weer koor atum junni ak ñett téeméer ak fukk juróom mille trois cent quinze ci gàddaay bi loolu mi ngi fekk sëñ Tubaa ci géej gi ginnaaw bi sëñ Tubaa demee ci géej gi nga xam ne mi ngi génne këram dix-huit safar mille trois cent treize boo ko xoolee bi mu génnee këram ak bi muy way xas yi rek yaa xayra dafin ñaari at la yu teg juróom benn weer ak fukki fan ak benn wala fukki fan ak ñaar su fekkee ne weer wa daa kaamil fukki fan ak ñaar la su fekkee ne weer wa kaamil fukki fan la ak benn bisub altine benn fer benn fan ci weeru koor atum mille trois cent quinze junni at ak ñetti téeméer ak code juróom moo tolloog bi dapt exactement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 juróom benn tey benn fanub tey gaawu benn fanub koor mille quatre cent quarante moo nekk téeméeri ak ñaar fukk ak juróom benn bu dee ci vingt quatre février mille huit cent quatre vingt dix ba tey jii ñu nekk ci mm, vingt cinq avril deux mille vingt moo lay jox téeméeri at ak ñaar fukki at ak ñaar ak ñetti weer ak benn fan bi sëñ Tuubaa bindee xasida gii di xasida yaa xayra dayfin allahu akbar xasida gu barkel la xasida gu sëñ Tuubaa waaye waaye ko cëtum cëtum rànk ba génn sa kër génn sam réew ñu yóbbu la ci boo xam ne xamoo fa kenn weeru koor ñëw nga di ko tasagal di ko màggal di wane ay baax baaxam ak ay njëriñam ba def ci xasida gi xasida googu ñu toog téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróom benn ci gàddaay gi ak téeméeri at ak ñaar fukki at ak ñaar ñu di ko waxtaane ah barkeel fa la mën a yem sëriñ bi ñu tàmbalee xasida gi bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima dafa tudd yàlla julli ci yonent bi ak ñoñam ak sahabaam sëlmal ci moom ak sëlmal daan ne xadistaxala ramadanul muazzam allahuma inna habibi wa xalili sahra ramadana xadistaxala alaya yowma al isnaini ama xamsata xasara wa salaasimiatin wa alfin allahu akbar sëñ bi ne xadistaxala indi xatu taxqiq nga xam ne day mën saa déggee ne weer wa dafa feeñ ba sëñ bi teg ci bëtam taa feer la def ndax istahalla buñ ko waxee ci arab bari na lu muy firi waaye buñ ne istahalla xilaalu sahri ay sahara mooy weer wi feeñ na bañ na tëgg ci bañ tëg ci bët bi buñ ne istahalla sahru mooy sahara xilaaluhu buñ ne istahalla xilaalu mooy giseef na ko li nga ci indi fi ñaari ñaari xam nga xad istaxala ramadaanul muazam ak allahuma inna abiyu alil yi xad istaxala alay yawal iseeni ñaar istaxala yi bokkuñu maanaa benn bi mooy weer wi dafa feeñ ba mu tëkk bëtam benn bi mooy weer wi dafa tàmbali bisub altine dafa tàmbali altine ndax léeg-léeg ñu ne istaxal istaxlal naa sahra ay ibtadaxnaahu kon weer wi feeñ na bu sëñ bi teg ci bëtam guddi altine gi ñu xëy suba di altine gi sëñ bi defar xasida gi wanete ne gis na weer yi waaye wanete bis bi weer bis bi weeru tàmbali mooy altine gi kon foofu yi doy naa yem ci xadis taala nga la xatu ko amul bi ne xadis taxala ramadan mooy juróom-ñeenteelu weer ci atum gàddaay ci weeru gàddaay bi weeru jullit ñi ramadan mooy juróom-ñeenteel bi moo ñëw ginnaaw badaaxlu ginnaawam weeru koor yi mooy ñëw ñu ay fanam fan weeru fan la war a ñaar ci fan ak juróom waaw lu tax ñu tuddee ko ramadan weer lu tax ñu tuddee ko ramadan ñu ne sax lu ëpp day ñëw ci jamonoy tàngoor jamono ji nga xam ndax yaa xaaliban maa yusaaribu samana ramadaay huwa allati yaqtadu fi xarra fi jasiratil arabi maanaam day ñëw ci jamono ji nga xam ne day tàng lool fa ñuy wax jasiratul arab mooy fa Màkka nekk ak dëkk yooyu moo tax ñu tuddee ko loolo nga xam ne mi ngi jógee ci arramad huwa siddatul xarri te mooy tarub tàngoor wi gis nga ci jamonoy jaahiliya ba lislaam ñëwagul ba ñuy tëral weer wi weer wu ne lañ daan xool jamono yooyu la cay am ñu tuddee na weer wi weeru koor nag jamono jooju dafa tolloo aw tàngoor moo tax ñu tuddee ko ramadaan nga xam ne euh, weer wi dafa tombe woon ak siddatul xar bi taru tàngoor ba moo tax ñu tuddee ko ramadaan loolu benn wax la ci waaye yii tàngoor woowu nga xam ne weeru koor ba ñuy tëral weer bi weer wa juróomi seen dafa tombé woon ak aw tàngoor ci ci la tàngoor di am ñu tuddee ko ramadan ñu ne baat bi ñu ngi ci ramada te ramada maanaam mooy alxarru sadid tàngoor wu tar ñu ne waaye tur dafa dëppoo ba lislaam ñëwee ba ñu farataal koor ci jullit yi ramadaan dafa tombe li jullit ñi di daj ci weer ngir aji woor ji biiram dafay tàng ngir taruk mar ak ngir taruk xiif am na ñu ne ramadaan ñu ngi ko tudde ramadaan li annahu yarmadu sunub maanaam ramadaan dafay lakk ay bàkkaar moo tax ñu tuddee ko weer wi weer wi lakk bàkkaar li ma wax boo demee ci téer alxunya sa imam al imam al akbar ak cheikh abdul xaadir jeylaani bind ko da nga ko fa fekk nga xam ne ci biir xunya boobu am na lu sëñ Tuubaa jukkee muy naafila ay bis bi tuddee ko safidu amaan al munjiyatu li xaaliha waaw ak safidu amaan bi nga xam ne mooy safidu amaan bi nga xam ne mooy mooy bu jullit xunya boobu wax na loolu ñu ne am na ne li tax ñu tuddee weeru ko mooy ndax arab yi dañu daan nammaat seeni ngànnaay daan ko préparé ngir préparé xeex ngir préparé xeex ngir rajab ak saxbaan ak weer yi xam nañ daan toog te bokk ci àll ak xurum ngir waajal xeex ñu ne li tax ñu tuddee ko li tax ñu tuddee weeru ramadaan ngir xol yi dañ ci am tàngooru waaraate ak xalaat ci mbirum àllaaxira ni nga xamee ne suuf si ak doj yi dañuy téye tàngooru jant bi loolu moo tax ñu tuddee ko ramadaan kon baatu ko ramadaan istiqaa bi mi ngi jóge ci arabat nga xam ne mooy li gën a siiw mooy li gën a jege maanaa yi wax yëpp ci ramadaan dafay wër kii loolu maanaa yëpp mën naa delluwaat ci loolu lu dul lañ dettile ci al moom rek bu ànd ñoom ci loolu kon gis nga sëñ bi nee na xadis taxala ramadaan waaye foofu mën nañ saa déggee ne borom xam-xam yi dañoo wuti ci baatu ramadaan képp rek ndax mënees na ko wax te doo ci laax saxru doo ci weer wi mu am ñetti déggin wu ci amoon am na ñoo xam ne dañoo ne baatu ramadaan rek wax noonu itlaax dañ koy tere ñaareelu kuréel bi ne baatu ramadaan buñ ko waxee te lëñ ko ne ko loo xam ne nii day tegtee weer yi su boobaa dagan na ñenn ñoo xam ne baatu ramadaan daal mën na ko wax Euh, euh, te euh, doo ko lënkale dara waaye da mel ne sëñ Tuubaa moom ci kuréel bu mujj bii ci la àndal te mooy bu ramadaan mu indi ko tële ko fii moom dara ngir ay xaddis yu ñëw na da ko fekk ci saxi Buxaari fekk ci saxi Muslim yonent bi ne Isaa kaana ramadaan ak Isaa daxala ramadaan yooyu yëpp yonent bi wax ko Isaa jaa ramadaan futihat abwaabu janna wa xuliqat abwaabu naar isa kaana ramadaan futihat abwaabu rahma wa xuliqat abwaabu jahannama jahannama wa sultilat as-saraabiil nga xam ne hadis yu bari ñëw na maye waxtu ramadaan itlaq ko noonu la àndal te mooy baax ramadan kon indi ko dana ko fii moom dara ngir ay xadis yu wér ñëw na da nga ko fekk ci saxi Buxaari yi fekk ko ci saxi Muslim yonente bi ne isaa kaana ramadaanu ak isaa daxala ramadaan yooyu yëpp yonente bi wax ko isaa jaa ramadaanu futihat abwaabul janna wa xuliqat abwaabu naar isaa kaana ramadaan futihat abwaabu rahma wa xuliqat abwaabu jahannama jahannama wa sulsilat as-sawaatiin nga xam ne xadis yu bari ñëw na maye waxtu bi ramadaan itlaq ko noonu kon day mel ne sëñ ci ñoom la ñooñu la àndal ndax tudd na ramadaan fii ba noppi indi indi wu fa baatu sëxru kon sëñ bi nee na ramadaanu wi feeñ na ramadaanu màgg wi agsi na ramadaan wu mag wi na kon mbokk yi ngir bañ a guddal naa yemale fi wax bu ko defee bu subaa ñu ñëw ci nag allahuma inna habibi wa xalili shahr ramadan qad istala alayya yowma isnini xaama aama xamsata asara wa salaasa miatin wa alfin ñu ñëw nag la lan mooy tàqale diggante al xabi al al xullatu ak ak mahabatu ñu ñëw ci incha allah waaye fi ñu daan rek